سيدي أبا بكر آه، في كل عين تتواون واو تتواون لن يكون دين تكو آه، آه، دين كان بابم أبتكو يتم خمني دكلا بو خمني يما لبو كو بين دكنا دان دي وخلو باري تتواون دان وخني شيخ الحاج مالك تد suñ ko mënoon defar ak wuru sax dëkk ba yëpp jar na ko ba daan nañu ko wax Eh, dan eh, di sah so ak yenn kilifa tubaab bi fee ñëw di ko wanan naan ko bëgguloo dara mo nan len bu gina dara waaye dama fi nekkul man rek te rew mu duñu bayyi weer ci ben fan suma len tege nga gis ñeneen ñu dem ci yeneen i kilifa ni len sëñ babagar tek na nguur gi nangam yeen itam dem len tek ko li rek a bayyi len ak seen bop waye ku am ku dayna mawdo wara soxla ndax ñun buñu sañoon yeen tuwa bi yeen sax waxuma talibi mais yeen tuwa bi buñu sañoon ngeen ñew fi tabaxal ko fi jakk wurus waxuma la leneen dinaa soxla toujours waaye nag bañal leen boobu fitna rek moo tax duma adressé ci yéen Tidiane si euh, keroog ba nga xamee ne xalifa euh, Ababacar si euh, yàlla moom na ko naka la taalibe yi def naka la xale yi def keroog eh, keroog taalibe yi lu dul jàpp ci yàlla ndax ñun la ñu fekk ci kër gi te ñun ñu fi fekk fekk na xam ni dina fi jóge ndax dëgg-dëgg nit bu dundee la mu war a dunde bu fa jógee itam dara nekku ci tey ñeneen ñu ko jiitu woon te nekkatuñu fi te li suñu àlloo di gàtt gàtt gis nañu ci alquran lu ëpp loolu doole moo di bi yonent bi jógee ak la nga xam ni moom la ci yàlla wax eh ñu xam ni kon nag moom itam su fi jógee taalibe yi suñu ñëwee bëgg def dara dinañ leen wax dëgg wan leen carrément ni ku am liggéey doo tal jooy góor gi bàyyi na fi itam yan bu nga xam ni ku fas yéenee yan bi fa tabarakallahu li ci war nga def ko daa xalaat yan bi doo xalaat ni moom dem